ci misaal mu ne ko dana la jaay marchandise sangam ci prix sangam waaye bu ma neexee ma wóyal njaay ma bu ma neexee ma dellu gannaaw ci diirab sangam nag loolu moo di xiyaar ka jumaatin abdi ni ki seman ab jaam bu dee la ngeen jaayante jaam la seman ci ngeen tànn xiyaar bi juróom ñaari fan lay doon man na ko ëpp nag ba fukki fan waa waaye bu ma ëpp loolu su bëree daal du baax wa shahri daari ak weer bu dee ci kër la bu dee kër ngeen di jaayante wala pàkk mm-hmm. mën ngeen a maye weer woo xam ne kum neex dellu gannaaw walla nga continuer mm-hmm. weer bi nag mën nga see yokk juróom benn fan kër ak pàkk ñoo yem de waxee du daal du lii nag salaasa ñetti fan la du dul kër du jaam xiyaar gi ñetti fan la dégg nga ñi fan la de looloo gën a wér kasaw bi comme yére kooku man nga man ngeen a tànn juróom ñetti fan wala juróomi fan daal ci waxi wax na juróom la lil mustari ñeen aji jënd ji nag aradu delloo njaay ma bi xëy ayib ci dul benn ayib xiyaar su amee kay jënd bu ko neexee mu ne jëndatuma te fekk maas li amul benn ayib ndax yooyu ñetti fan yi da koo tërël walla juróom ñaari fan yi wala fukk ci waxi ñenn weer wala weer ak juróom benn fan yi da ngeen koo tëral ngir kum neex continuer njaay ma kum neex génn ca loolu moo di xiyaar bu fekkee nag fan yi ëpp na fan yi ñu tëral nii xiyaar ga baaxut fan yi ñu tëral la mën a doon mu ne wala ma kaana moom nekk al mu njaay yëquma di tàppi taaratin léeg-léeg yàlla batt di nekk njaay mu dog mooy loo xam ne bu ngeen waxaalee ba juboo rek jeex na fatal dama kon dana war al mustari aji jënd ja asinaatu marchandise ñoom bi mu jëlee di ci rafet nangu gim nangu iyaa marchandise ba boo nangoo marchandise ma rek njaay ma jeex na illaa bi zuhuri aybin lu may ci feeñ ayib saabixin gaa jiitu juuju bu dana waral xiyaara tànn loo ñeel ko su fekkee am na ayib nag goo xam ne ni ayib gu jiitu la goo xam ne ni dana waral xiyaar dégg nga mm-hmm. su boobaa mën ngaa maanaam bu ngeen waxaalee ba jubóo it fekk marché yi dafa amoon ayib mu nëbbalu ko mën nga cee génn yow moom jàngoon nañ waaye bu dul loolu rek doo ci génn wataaratan léeg-léeg yàqoo dana tab moom jaay alal yi ci tànn fees butu mu sax li mustari ñeen aji dina jël raddu si naati delloo marché yi ma leen bàyyi ñeen aji jaayal xam la mu di zamanin xiyaar njëkk wéyeg jamono tànn ga waroo bi daa ay bin doon ci lu ayib la rek laa wax de njaay léeg-léegi mu nekk xiyaar bu dee xiyaar la nag kiy jënd mën naa génn ca njaay ma delloo marchandise mi balaa jamono ji jeex jëlee marchandise amul benn ayib de aw xabulaha wala mu nangu marchandise moo wari daa mu gërëm bi ci marchandise wala mu maa ngi batan dafa am ayib mën naa nangu marchandise ba dina dafa ayib parce que xiyaar la xiyaar moom buñ lay jaay lu am ayib it mhm. comme que da ngay tànn rek bu la neexee jënd bu la neexee bañ a naa nekk mhm. su ma saraa mu soobu fi tafsir zalika ci teqale loolu fa qaal ne baabul xiyaare xiyaagal yi baabul bunt fi bayaani hukmil xiyaare ci leeral naa tey xiyaar mhm. waan waaw wa xeetam bi nazari ci xool ila tanawoo ci ne ci xeetu marchandise ba boo xoolee façon marchandise yi daal dégg nga dégg nga da nga xaaj xiyaar ay xaaj dégg nga te fan yi dana wutee mm-hmm. marchandise bu nekk rek ak fan yi ñuy def ñu ngi koy def xiyaar mm-hmm. ومم خيار قسمان نياري خلا خيار تروين خيار قلات أي تعمل إن في سنة سماة نزمة ونصر أخول في رخص ثمانية يوم مجدد أو غلائه ولا سير جدد يودال دنگي قول ما سنجز بي من باغ نام باغر جدد أنا زنرام أنا زول ومم خيار تروين دي وخيار نقيدة أخيار كونترير maanaam xiyaarun tànn goo xam ne yasbutu dana sax lil mushtari ñu laaj jënd ji bi sababi naqdin bu wàññeeku yazaru dana feeñ fil mabni te dañuy jaay mm-hmm. te la ngay jaay moom dafa am ayib mm-hmm. ak kooku moom xiyaar la ko moom ngeen wax ko ngeen ñàkk koo mm-hmm. mën nga ko delloo xataa boo ko jëndoon mu dog gis fa daal lu wuuteeg la taxoon nga jënd ko mën nga ko delloo kooku moom jërul jërul wax xiyaaru tarawin nag lay lay jàngale dana dugg ci xiyaaru naqida de wala xukmi bayn xiyaar yi ci jaayam xiyaar mm-hmm. waxtilaafi zamani ak wuteeg jamono ja bi ixtilaafi sani sinin ci wuteeg martlis ba mm-hmm. achaar la juñoo naasim waykat bi xawli ci waxam àtteeb mm-hmm. xiyaar lay jàngale ak yéen jamono la leen islam di may ngeen tànn moom lay de ne wa jawazu daganal nañu albayaan jaayal xiyaari ci tànn yaaram xamal <clears throat> anal xiyaar ne tànn bayun jaay la itawaqafu dana tënk luzumu ak waram wéyam daaw ak wéyam alaari daa ci d'accord ak ki nga xam sabata sax na loo ñëw ko la xiyaaru tànn mm-hmm. xiyaar njaay moo xam ni pour mu continuer mm-hmm. ka nga xam ni moom lañ may duraa ko yaa war a tànn moo koy continuer wala xëy mu yàq njaam bi chartin moo xam dañoo chartalante ne njaay mi xiyaar laay def ku ko ci mën a rek baax na aw jare yaa ni wala mu daw fi adati baladi ci aadaay dëkk bu dee lay aadaay dëkk mooy ñoom njaay mi daal dañuy tànn xool ba pare loolu mooy xam de boobaa boobu mu attimal jawaazu moo di dagan kama na ba comme num yeeye ali ci bi xawli ci waxam de ne wa dagan nañu al bayan jaal xiyaari ci tànn wal maana maana ba a naqdal bayi naka fasam jaay ma ala xiyaari mustari ci tànn ak aji ja mislaan yaqulu ni ki mu wax ishtaritu jënd naa min ka ci yow hada abdu bi jaam aw hada sawba wala bi la yére aw hada qaar wala bi la aw shibi zalika wala niroog yooyu bi ka ci lii mina dinaa niiri ci ay aw daraahim wala ay man nañoo fas njaay ma waaye aji jënd ji bu ko neexee mooy tànn ku neex mën naa tànn rek ku ko ñoom ñaar ñëpp ku neex mën naa wax ne man damay jaay ci xiyaar bu dee jëndkat bi mooy tànn mooy dafay wax ne yére bi wala jaam bi wala pàkk bi bëgg naa koo jëndee nangam ci dinaar ay daraay wala ay dërëm waaye wali ñeel na mal xiyaaru tànn fil xabuuli ci nangu wara di wala delloo martiris bi ilaa waxti kasaa bu waxtu nangam kooku loolu jaay suna ji dagan na mu raxasun lu yombal la fii ci moom saraan ci sariya xiyaar googu dagan na sariya maye na ko waxtu bi nag du ñoom ñoo koy tëral nu mu leen neexee waaye sariya moo koy tëral wa kasaa nag noonu la mel la waqa bu tàbboonam ala xiyaari bañ ci tànn ak njaay ma dégg nga misla yëpp maanaam alal xeyaaril baa'i kaan la war na wax ci tànn ak aji jaay ja bu aji jaay ja moo tànn misla yëqul ni ko mu wax leen mustari ñeen aji jënd ji ne bantu jaay naa la aji daara bi la kër bi ma ci téeméer waaye wali ñeel na ma nag alxiyaaru tànn fi mu daay ci continuer njaay ma war a war a dellu gannaaw su mu bàyyi mu baax rek laa wax xiyaar gi mën naa nekk tànn ak jàmbur jàmbur gi nag mën naa am jaaykat bi mooy na tànn wala jëndkat bi aw waqan wala mu tabara xiyaari ajnabi yin si tànn jàmbur mooy koo xam ne jëndut jaayu kaan yaqool ni kam waxal bàyyi jaay ja ne bintu ko jaay naa la xaati daabatu bi daaba bi asaratin ci fukk masalan ci misaal ala xiyaari zeydin ci kaw tànn ak zeydu te zeydu jaayut jëndut bu fekkee jaaykat bi moo wakkil mbir mi zeydu ah boobaa Seydou mooy wéyal jaay mi wala mu delloo ko gannaaw aw yaqula wala mu wax al mushtari aji jënd ja ne istaraytu jënd naa hadi silence bi la maas nit bi ci nangam ala xiyaar ci kaw tànn ak sama mbokk aw am mi sama baay tax aw xëy ma wala lu ñoom ñaar su boobaa mbokkam moomu wala bàyyi taxam wala daal kaw jëndkat bi wax kooku mooy tànn wéyal njaay mi wala mu delloo ko gannaaw yooyu yëpp na. waaye nag su fekkee da ngaa bàyyi xiyaar gi koo xam ne jàmbur la kooku mën naa def lu ko neex d' accord nga wala d' accord bu wéyalee day wéy bu ko delloo gannaaw mu delloo gannaaw moom la wane wala man joxe la ñeel na ko def nañ la wañeel ko tànn ga ati cib daaru jegoo min ci wéyal njaay ma waa diixee wala delloo njaay ma la raajee ci wax ju gën a lëng nga xam ni moom nga jagleel na na tànn bu ko neexee mu continuer njaay mi neexee mu yàq ko parce que yéen a ko bàyyi mbir mi maanaam mën na koo jegoo mooy mën naa def sans seen d'accord parce que yéen a ko bàyyi laa hmm. na man asnada ndax ka wéet na loo ñëw tànn ga hmm. alxiyaara tànn ga enrada hmm. ci fi bàyyi lépp ñe diw mooy tànn kon falaa karaama déet benn wax la di ko ñeel moom mi nga xam ni dafa dégager responsabilité am bàyyi waa jooju mu tànn. waaw maa man xaala waaye ku wane istayatu jënd naa hadi sinaata bi la marchandise. bi xam sa ci juróom masalan ci misaal ala mashurati fulaanin ci diisoog diw. ah kooku diw sañu te def dara lu mooy moom mi jënd d' accord ndax daf ni diisoo diisoo moom koy d' kon fële si nekkul mustachar ñeel kañ ñu diisoog. alistibdaar jagoo bilim daay ci wéyal njaay mi aw radd wala delloo ko yow mi nga xam ni nag dañuy diisoo yow rek ah mënoo tëb tëb rek ne njaay mi dafay am wala du am amma buñ ne la yaay tànn nag mën ngaa tëb tëb ne njaay mi day am wala boog du am laa nal mustari ndax aji jënd ji fi aji suurti ci bi la melo jaxala def na li naf si ñeel boxam maa nga xam ne yu xaw yi dana dëgëral dëgëral jaani boobu wàll ak tànnam bu ne damay diisoog diw kon bàyyiwut mbir mi yëpp diw moom bàyyi na ci boo xam lu dëgër daal waaw diisoo la wax kon lam ci bàyyi woom sax moo ëpp sa fa taamal sa dem teral wax ji baax su ko defee mu war a jàngale xiyaar wala maakaana ba mu nekkee jamonul xiyaar yaxtarifu di wutee bi ixtilaafil bàyyi ci wuteeg njaay axasa commencé yu bayinu di leeral daaliku loolu مصدرا درين كوماسي بكاف التمثيل كاف بو خمي دافاي مثال فقال مولاك جماعة العبد والشهر الداري أي أن زمن الخيار أنك جمن التنك بالنظر من إلى رقيق جمشي جام المشترى بن جند بخيار تنف lil mubtaa'i ñeen aji jënd ja aw lil mm-hmm. jumaatul mooy semaine ay sabaatu ayaam juróom-ñaari fan mm-hmm. jaam moom bu ngeen koy jaayante comme neex ci yéen ñaar kuy jënd wala kuy jaay tànn juróom-ñaari fan yoo xam xool ndax dana jënd wala du jënd mm-hmm. xool marchandise bi jaam bi nu mel ak njëg gi na ko mu yooyu mën na ko waaye da xalaat dugal na al kaafu kaaf gi salaasala ñetti fan kon fa gaayatoo doytul waaye ba asatu ayaam fukki fan la may nañ la fukki fan daal ndax daf nekk ka jumaatin comme semaine kaaf gi dugalaale yeneen ñetti fan muy fukki fan kon man ngeen a toog fukki fan wala raaji ci wax ju gën a lëng lixtiyaari xaali raqiqi ngir tànn melo jàmp bi fi ak lii naka lay lekkee wanoo mii lay nelawee wa salaamati ak muccam min ayubin ci ay ayib yoo xam ne tax faa dana nëbb ali ci moom indal hmm? ndax mën naa nëbb baax na ngeen xool ba xam am na ayibam déet te booli ni kii sawara firaas ci lal yooyu ngeen ko xool mm-hmm. waswaas jax-jaxal xalaat yu bon yu zaarik ak yu mel yëpp mooy tax nga ñu may la fukki fan yoo xam ne da xool mbiru jaam bi mm-hmm. waaye nag doo ko saña liggéey loo boo ko liggéey looyu da nga koy fay fay nga ka moom jaam ba moo ko moom ndax yow tànk jënd goo rek jaam bi nekk gu sa loxo bu amee problème de jaaykat bi mooy perte kon lu ci juddoo ci njëriñ it jaaykat bi moo ko moom wala joosu da nga loo ñel ko istixdaamu liggéey loo jaam boobu illaa bi ujratin lu mooy ci fay yaanal xallata ndax njëriñ fi zamanil xiyaar si jamono tànn mm-hmm. lil bàyyi ñeen aji jaay ja wa damaanu garantie aji jaaja moo moo war a ba fekk njaay ma fasoogut bu yàqoo mooy perte waaye jus naa dagan la woon ne ko istixdaamu liggéey loo ko alesira lu néew ko mu naawarati taamil ni ki jot li ñam aw qaxwatin wala café wa ma ashba zalika ak yu nurgu jaam bi man nga koo liggéeyloo liggéey bu yem liggéey bu yem comme lan kom defaral ma café andil bool bi taajal ma fii ñam bi ak yu mel noonu ah yéen yu ndaw yooyu mën naa yow mi nga xam ne yaa ko bëgg a jënd ci xool te jënd ko ndax yooyu mën nga ci xam nangu ne yonentu wala nanguut yonentu wasam kon bu dee jaam ngeen jaayant fukki fan lañ leen may ngeen tànn bu dee jaaykat bi mooy tànn diira fukki fan yi la bu dee jëndkat bi diira fukki fan la du bu dee kër la nag moom la wa zamanuhu jamonoy xiyaar ga bi nazari boo xoolee ci kër al mushtaraatu bi ñu jëndal xiyaar ci xiyaar shahrun weer la bu dee kër la weer la leen may wayet xul dana dugg taxtal kaaf yi coron kaaf ga ziyaadatu sitati ayaamin yokk juróom benn fan ala shahri weer weeru kon weer ak juróom benn fan moom lañ la may ci wàllu kër ak pàkk mm-hmm. li ixtibaari xaalihaa ngir nattu mbiru kër ga situation kër si nekkee baax naa ak ci aju yëpp wa marafiqa ak ay njëriñam wa xaali jiiraane ak situation ay dëkkandooram yooyu yëpp bëgg nañ ko xool walaaye jus dagal li mustari ñeen aji jënd ja sukk naa dëkkee ku mut la xam nu mën a demee yow mi jënd amoo droit dëkkee ci kër ga mën ngaa dem di xool naa nga waaye dëkkee ku force amoo si droit ah bu la bu la ko jaaykat bi mayee mën naa nekk mm-hmm. waaye boo fa dëkkee moom te mayul la a fay mm-hmm. kon bu ko neexee mu luyee la ko nga dëkkaale fa kasara bëri na a zamanu njëgga a zamanu jamono ji aw xal la wala néew na lan ko dëkkee daal bari naa bëriwul daal amoo si dara istarta sartaal na ci sukk naa dëkkee am laa wala déet ko waxee ko dama ci dëkkaale nag mooy la waaw ko sartaal moo tax mu nangu ko ba tey baaxu da ngaa war a fay moom daal moom moo lay may ci coobare boom ndax nit am na dara may alalam nga dëkkee fa waaye bu dul loolu rek fay nga war def illaa bi ujrata lu moo ci fay kon da ngay jënd kër gi ci xiyaar lu tax mukk nga sañ faa dëkkee te fayoo mais man ngaa dem nag di xool situation kër gi ak lépp visite xool daal bu baax a baax xool dëkkandoor yi yooyu bu neexee nga luye ko it ngir gën a xam lu tax ñu ne doo fa dëkkee mooy li ànd tasarrufa ndax soppandiku film bi ci la ñuy jaay laa yajuus du dagan illaa baada duxuuli lu may gannaaw mu duggee fii damaani mustari ci garante aji jënd jënd ci bu ñuy jaay dara yow miy jënd balaa nga see sañee def loola neex day fekk la jënd koo pare kon kër gi balaa nga koo dëkkee te dëkkee moo tax ñuy jënd kër balaa nga koo dëkkee foofu nga jënd ba pare waaye nag di xool rek te jënd goo du tax ñu may la nga dëkkee waa rek fañ sakkanaa nem dëkk na ci kër gi mu bëgg jënd waaye dafay tànn min xeyri isnil baaxi ci lu ndigalu aji jaay ja foofu moom mutaaddin aji jàggati la talzam talzamuhu dana ko war al ujratu fay dafay tooñ war naa fay lu yaas ba mislu daari kem kër la fi jëmee tafasilaa ci mboolem teqale yi alaqaaru pàkk allazi gi nga xam ne yaslu dana li zari ngir bay aw lil binaay wala tabax ci kawam ittasara jokk na bii ci moom asjaaru ay garab aw laa wala mm-hmm. pak pàkk yi nga xam ne ni mën nañ cee bay wara ñu tabax ci am na garab wala amul garab pàkk yooyu yëpp tamit man may nañ la weer ak juróom benn fan nga tànn ndax pàkk bi arrangé na wala arrangé la bu dee mbay gàncax gi dana naa tam du naan nga xool daal dégg nga waaye doo jëfandikoo pàkk boobu di ci bay walla di ci tabax te diir ba jeexagut su ko defee loolu mooy xiyaar ci wàllu jaam walla kër